yee asalaamaaleykum sama gars maa ngi ziar yéen a ngi si jàmm na tey ça va alhamdulilah macha allah jaajëf faay donc euh, yëpp ay ay étapes la yi may won yi may won Sénégalais won leen ni liggéey dafa am solo dëkk kenn du ko développé lu dul ay citoyens citoyens ñooy développé dëkk. gis nga ñii tey policiers yi ba la doon caméra cent ans dañu la wax bul ma caméra parce que sàcc ñu fenn ñu nekk ñuy jël xaalis jàmbur bu ñu la waree bindal dañ lay bindal quoi normalement nga taxaw assister ñu noté lépp dugal ko ci seen machine machine yi porte auto boo gis am na machine machine bu fa nekk ci kanam machine boobu lépp contravention yeeg lépp tu vois amuñu werante quoi ils sont là donc ñii tey boo leen di caméra ragaluñ quoi ragaluñ parce que duñu ay jëlkatu 1000 francs duñu ay jëlkatu 5000 quoi jomb nañ ñii dañoo jomb ñii pourtant ñi ngeen di wooyee yéen ngeen ne ay jullit ngeen quoi ragalu leen nit nit def lu war waru jaarul yoon jox leen 1000 francs ngeen dugal seen poos ngeen ne yéen yàlla ngeen gëm ko ñii ngeen jàpp di saaga na ñii gëmuñu yàlla quoi ñoom ñi gëmuñu yàlla yéen a gëm yàlla yéen a nitu ajana yi mais yéen a dàq sàcc sàcckat ay sàcckat ngeen boo leen nekkee ci tali yi 1000 francs dañ koy jël 1500 2000 ba ñu leen dara man ñi laa gën a gëm ni ñi ñooy jullit yi yéen doo julit ñuy jullit sàcc corrompu yàlla nee na la corruption c'est une abomination vous êtes prêts taxaw ci tali yi di jël 1000 francs 1500 nit di leen ko jox les gens sont dañuy dañuy dañuy taxaw assister di di di di bind di teg di jox gars yi contravention yi ñii duñu jël 1000 francs duñu jël 2000 francs duñ négocier duñ waxaale te lépp dañ koy yóbbu ci service public bi xaalis buñ paree trésor la jëm trésor public. bu desee ci ñun nag ñun ñii di woote ay dañoo gëm yàlla wala dañoo ragal yàlla ñun ñooy sàcc yi quoi ñun ñooy naafeq ñooy fenkat yi. amuñu benn jikkoy jullit ci suñu biir daray jullit amuñu ko à part tour ak sant on n'a pas honte duñu rus di tàllal loxo di jël lu ñu moomul duñu rus di sàcc alalu euh, impôt et domaine duñu rus di sàcc alalu askan wi ñu rus di sàcc alalu alalu finance publique bi duñu rus loolu duñu rus di détourner l'argent du contribuable duñu rus loolu ñu rus di sàcc bay sàcc ay coton ci biir ci hôpitaux yi di sàcc bay sàcc euh, lu lu tudd mor euh, euh, morsa néew yi lu ñu leen di sàngee donc bu ñu bëggee développer suñu réew nii lañ koy doxalee nit yi dañu war a jub déjà dañu war a jub dañu war a am kenn ku ñu def seen nawle wala ku ñu ragalee dara xel sax muy suñu borom subhanahu wa taala xam ne une corrup la corruption c'est une abomination mais ñi dañuy togg di liggéey kenn du fi taxaw ku leen doon photo wala ngeen di leen di vidéo ils sont forts mais ñi dañu gore quoi ñi ngi nii ñi ngi nii toog di def. bindal nit contravention ñu ngi toog teg seen i plan teg seen affaire xool mais kii benn kenn du doo yulli poosam fekk ci un cent mu jëlee ci public bi mukk jamais si ci ci ci canadiens yi ils sont tranquille def seen i liggéey mu jaar yoon mun nga leen vidéo cent ans du déranger wu leen parce que du ñu sàcc du ñu jël alalu jàmbur lu leen yàlla wax ñu koy def du ñu sàcc du ñu jël alalu jàmbur nanguñu ger ñu corruption et cetera et cetera lu leen yàlla wax rek def nañ ko mais ñi nga xam ne dañuy détourné xaalisu tey jii tey jii ñu fay la xaalis ñu jox benn nga jàpp benn police benn policier bu jàpp benn sénégalais boo xam ne mi ngi yore otoom wala mu yore motoom di dawal ñu jàpp ko ok mu war a fay 1000 francs wala 2000 wala 1500 waa ji dugal ko ci poosam léegi mu dajale loolu dugal ko ci poosam jox ko jabaram mu toggal ci doomam yi ñu lekk quoi et il est il est il est cool mi ngi ci jàmmam quoi moom moom jël na 1000 francs ci kaw tali bi wala 1500 dajale ko dans la journée il a 10 000 ou 20 000 ou 30 000 jox ko jabaram quoi jabaram war ko togg di ko jox ay njabootam pour ñu koy coob quoi et puis il a la conscience tranquille quoi bu tëddee day nelaw quoi bu waree xool ci doomam i xam ne lii ay alalu sàcc la leen jox ko au lieu mu verser ko trésor public du ko def léegi nag Sénégal mooy am problème mu salaire loolu moo tax problème mu salaire am. est-ce que xam ne dëkk bu am problème salaire ça montre ko dëkk sàcc la dëkk bu sàccul du ñu am problème salaire mais bu fekkee xaalis bu war dem ci trésor public bi mi ngi ci biir poche jàmbur yi mais dëkk boobu trésor public am du am xaalis n'est-ce pas trésor public fa la ñuy déposer lépp luy taxe impôt lépp tout waaye yéen dëkk boobu bu dee ay sàcc lañ ay jullit yu foo lañ turu jullit lañ yor mais ay bandi lañ bandi salte lañ ku li ci gën a salte ji ko nga ne ma kii la buñ sàcc alalu Sénégalais yi mais trésor bi day public bi day dara du fa am trésor bi dara du fa am trésor boobu mooy fay nit yi bu fekkee li ñu war a fayee nit yi loolu moo war a dem ci trésor bi nit yi cotiser ko pour mun ñu ko fayee joxe nit yi ñu fay leen seen salaire mais bu ko nit yi jëlee dugal ko seen poche yi ñoom mais loolu moo tax trésor public des ñu naan Sénégal trésor public am lu ñu leen fayee parce que ay sàcc ñoo ko jël dugal ko seen poche yi jox ko seen njaboot yi te yooyu yëpp dafa dépassé monde bi nekkatuñ foofu tout est digitalisé moo Dieu tout est digitalisé dans cette vie là gars yi dañ leen rawee ay année lumière ngeen war a concentré wu ci seen bopp mais li ma gis nii dalul xel gouvernement bi ñu ngi ci yoon bu baax yoon bu dëggu yoonu njub yoonu leeral mais ces Sénégalais là c'est comme ñoo ils veulent pas avancer y un sérieux problème et mon problème maintenant c'est les Sénégalais est-ce que vous voulez avancer wala yéen dañ leen a tàqaleeg avancement wala seen wujji yaay dañ leen a xërëm ngeen wax ma seen wujj yaay bu dee dañ leen xërëm bugg leen dara ci avancement bugg leen développement bugg évolution bugg leen progrès ngeen wax ñu ñu xam ne yéen yéen a ko buggul ñu bàyyi leen ak àdduna a xam ne xeet mi xeet bu bon la jur gu bon la bugg ñu avancer gouvernement bu taxaw pour changer pour développer pour évoluer au lieu ngeen concentré wu ci lool yéen a ngi ciy ñàkk fayda vous passez tout votre temps ci lu amul benn njëriñ quoi ci yéen. vous passez tout votre temps à discuter ci ay ay liveur buy saboté buy yàq ngeen perte fa seen temps waxal ci kii waxal ci kaa waxal ci kaa vous pensez que man sama liggéey moom mooy toog fii di wax ci ay liveur yaakaar ngeen ni man dañ may fay salaire pour may wax ci ay liveur ko ay liveur yoo xam du ma leen sax suivre ngeen am seen ñàkk fayda bay suivre liveur yooyu ñuy saaga seen ndey wala respect seen i leader ngeen ñëw naa moo laa waxal ci liveur yooyu arrête ku ma wax loolu sa ndey ah sa ndey parce que da nga manqué da nga manqué respect ku dugg ci duus tax day ku dugg ci duus dëgg day man dugguma ci duus bi boo dëggee sab day xoolal foo yóbbu sab day mais bul ma ko taxal boo jëlee ba sa tànk yi ba dëgg ci day demal xool foo raxasee say tànk bu ma kenn jegeleeg caaxaan man caaxaanuma dama xeex bay bëgg a dee pour teg fi benn nguur régime boo xam ne dama leen wóolu jiital leen respecté leen ñoom laay suivre seen pas lu dul instant yi lu dul président Diomaye Faye Ousmane Sonko ci ni ñuy doxalee suivre ma keneen du ma suivre liveur suivre ma kenn déglu ma kenn fi ma jógee dafa sori te dama tungoom jàmbaar yi góolu nañ encaissé nañ ay bal encaissé nañ ay coup mortel encaissé nañ ay rëbb dëmm encaissé nañ ay ñun ñu bëgg lekk encaissé nañ ñoo xam ne yàlla bu ñu sauvé ñoo ñu dañuy tàqale bopp ak baat ndax amoon nañ yéene tàqale ñu bopp ak baat ku am yéene fekk la say baay di nelaw sa yaay ñu ñu wëral leen pëne pour rey leen xam ngeen ni kooku bu la jekkoon yow waxatul la donc fu ma jógee dafa sori jël Ousmane Sonko tungoom teg gauche jël Diomaye Faye teg droite j'ai bravé la mer soleil bi taxaw lépp taxaw ma rayante ba tey teg leen fu fii nga xam ne moom laa bëggoon kon yàlla dimbali na ma alhamdulilah donc je vais plus dormir mais kenn du ma divertir aussi parce que li ma liggéey ak fu ma jaar doomu aadama yi daanu nañ ci yoon bi samay mbokki mbaar yi ma àndaloon ñu ci bëri daan nañ ci yoon bi suul naa ci ñu bëri ñu ci bari gaañu nañ ci ñu ci bëri seen loxo dagg na ci ñu ci bëri seen tànk dagg na ci ñu ci bëri et cetera et cetera alors loolu lépp aussi coono la donc il faut savoir l' essentiel nga xam c' est quoi l' et tu focus sur l' essentiel parce que le développement le développement, c'est déjà c'est personnel. Le développement doit être personnel avant tout. Donc il faut, il faut aussi vous concentrer sur l'essentiel, que vous puissiez développer sur ce qui, veut, qui, qui, peut vous faire avancer. Donc et que ne, ne perdez pas votre temps sur des détails. Ces livers qui sont là-bas, qui sont, on s'est battu pour les mettre à sol. On s'est battu, on s'est donné à fond. Donc il faut se concentrer sur l'essentiel, sur l'évolution, sur le développement, le progrès. les débats doivent tourner autour de sa mais débat ñàkk fayda waxal ci kii waxal ci kaano kii mi ngi diir kii matt na kii kii xosi na kii non ça c'est pas ce qui peut développer un pays c'est pas ce qui peut développer un pays ak fu monde bi toll nañu concentrer sur l'essentiel ñii indi nañ changement ku ko xool jarul soxlawul ngay forcer Ousmane Sonko Diomaye fay liñ fi teg kenn musu ko def un gouvernement de vingt cinq ministres ok mos na fi am Abdoul Mbaye defoon na ko fii et cetera yàggul après pum pum pum ñu def mais gouvernement bi musu fi am même bu dee gouvernement Abdoul mbay de vingt cinq ministres ñoom dañoo defoon seen priorité ay politique c'est un gouvernement politique Sénégal gouvernement politique moo fi musu am dañoo war a am quota Saint-Louis dañoo war a am quota Ziguinchor dañoo war a am quota Touba dañoo war a am ñoom loolu lañ leen xamaloon te ça c' est des ministres de la république c' est pas des ministres de région c' est pas des ministres de région c' est des de la république la république c' est tout le pays qui doit se sentir ñu ñu war a jël dañu war a dekk même bu doon tey jii vingt cinq yëpp Casamance la ñu war a génne dañu leen war a génne Casamance même bu fekkee vingt cinq yëpp dañu war a génne Kaolack Kaolack la ñu war a génne parce que c' est des ministres de la république c' est pas des ministres de région da ngay wuti député le député day représenter ay région ay localité le ministre c'est le pays c'est une nation nan la sénégalais mun a des ci ay débat yi ñàkk fayda yooyu ban dëkk moo développé wu ñuy jël ay ministres par rapport ak ay régions ban dëkk la et y a des gens qui sont prêts à perdre du temps sur ça ce genre de débat inutile bu amul benn njëriñ ñu ci perdre seen temps parce que voyagé ñu xamuñu monde bi nu muy doxee monde bi lañ leen raw à une une vitesse exponentielle je vous le dis amul benn dëkk bu développé boo xam ne ministre yi dañ naan ay région bi la ñu war a wala région bi wala région bi wala région bi parce que c' est des ministres de la république c' est comme le président de la république c' est pas le président d'un quartier c' est le président de euh, euh, d'une cité c' est pas le président d'une région c' est le président de la république on on parle aussi de ministre de la république donc comment un un pays comme le Sénégal di débat ay noom ministre yi fii la génnee mi Touba amul ñaar bii am na ñett ñeenti jigéenoo ci ne juróomu góor benn góor jigéen na ci am benn non mais mais ça c'est des c'est des débats yu honoré wul réew mi ay débat yu ñàkk xorom la yu honoré wul réew mi ay débat yoo xam ne ku leen gis déglu ko ngeen di wax bu dee dafa amul jot danaan dëkk bii moo gën a torox ñi ñu ñàkk jom bu dee ku baax la dina laaj yi lan ngeen di dundee mu dem xool nutrition yi ba xam est-ce que dina développer seen xel yi parce que dëkk moo développé wu naan ay ministre bii fii gox bii la génne ministre bii mi fii am ñaari jigéen ñoo ci am ñetti jigéen dama mini bu doon gouvernement boo xam ne cent ministre vingt ministres yëpp wala vingt cinq ministres yëpp góor la jël bu dee gouvernement boo xam ne vingt cinq ministre jigéen la jigéen la ñuy jël donc ñoom Ousmane Sonko le président Diomaye Faye daf nañ lu musul am Sénégal jël ay ministre yoo xam ni defuñu leen politique ta choisiruñu leen par politique wala mais par compétence ci domaine bu ñu nekk loolu lañ leen choisiré il faut ngeen xam ne li ngeen tàmmoon di dund day dafa dakk loolu moo tax il y a eu quatre li ngeen tàmm di dund dañ ne dañ ko fiy jëlee quatre-vingt-sept morts ngeen rey ngeen ñu rey quatre vingt rey ci ñun pour ne duñ fi jëlee li fi newoon kon kay li fi newoon ñu ko fi indiwaat xel bi ngeen doon doxee dañ koy teggi dañ koy gis nga dama ne xel yi ngeen doon xalaatee ñun dañoo indi set lamset set di ko lelli seen xel yi la ñuy lelli dafa bëri li ci nëb instant yi ci li nëboon ci seen xel yi la ñuy lelli ba mu set wecc di ngeen yuuxu nag dina metti mais dinañ ko lelli ba mu set tëmbal ko ca poubelle ba raxas ba mu set bomb ko ba mu set comme góom bu ñuy faj faj leen pour indiwaat leen bëgguñu lenn lu ngeen doon def loo xam ne danañ ko jël di ko euh, parce que torox tàngee lañ leen fekkee bokk ngeen ci pays yu gën a pauvre ci monde bi pays yu gën a ñàkk ci monde bi pays yu gën a ñàkk xel ci monde bi parce que dëkk bu gën a doxee du développé wu dëkk bu xel yi évolué day développé parce que esprit mooy développé wu pour réew développé wu nit mooy développé wu pour réew développé mais nit bu développé wul réew mi du développé wu kon réew mi bokk na ci vingt cinq pays les plus pauvres au monde kon Sénégal bokk na ci vingt cinq personnes yu gën a ñàkk xel ci monde bi vingt cinq personnes ñu gën a ñàkk xel ci monde bi boo wëree monde bi yëpp ñu dajaloo xoolal ci vingt cinq yi bul bàyyi sénégalais bi mi ngi ci biir mu ngi ci ñu gën a ñàkk li ñu xalaatee parce que nit bi bu arrière rek fa mu nekk arrière nit bi bu avancé fa mu nekk avancé kon esprit yi ñoo développé wu ñoo sous développé moo tax dëkk bi da sous développé mais dëkk esprit mënul développé wu dëkk sous développé mënul ne mënul nekk nit ki bu poosam développé woo këram développé wu bu poosam développé wu këram rafet bu poosam développé wu du dugg ci saret oto la yor bu poosam développé woo da ngay gis avion lay jël bu poosam développé donc noonu mu développement day feeñ ci jëmm di feeñ ci doxalin il faut ñu xool li ñuy xalaatee foog ñu nekk ci sañuy xalaat utiliser leen seen neurones lépp li ngeen doon def bëgguñu ko parce que li ngeen doon def moo arrière loo réew mi donc dañoo ñëw pour changement amul lenn li ngeen doon def déwén nag bërki déwén loo xam ne ñun ñee nañ ko bëgg nañ ko déedéet déedéet lépp la ñuy changé dara baaxu ci lam Ablaye Wade doon def moo toroxal suñu réew mi la Macky Sall doon def moo toroxal suñu réew mi loolu lépp jëluñu ci benn exemple ci mbalit ma la jëm dañ leen di defal lu bees tàq kon ñu ngi doog a am ministre yoo xam ni jëluñu leen par région wala par euh, environnement politique wala base politique non mais dañ leen jël par compétence nekkuñu fi di def ay euh, góor jigéen góor jigéen góor jigéen parce que pour faire plaisir aux gens wala nañ jël benn góor jigéen ak benn góor ak benn jigéen ak benn ak benn lesbienne ak benn green ak benn no non non non on n'est pas dans pour faire plaisir à tout le monde non on n'est pas dans ça kenn du defar pour faire plaisir à tout le monde yàlla ci boppam sax bëggul ci faire plaisir à tout le monde c'est pour cela il détient pas l'unanimité malgré que c'est le c'est le tout puissant le miséricordieux am na ko gëmul même Dieu ne fait pas l'unanimité donc bàyyi leen di wutal nit yi unanimité bu leen perte seen temps ci bugg a forcer nit yi ne force di ngeen bëgg sonko am na ñoo xam ne seen géeru dund duñ ci bëgg sonko Mouhamed sallallahu alayhi wa moo gën sonko ci lépp mais pourtant dund na ba bu muy génn àdduna dafa amuy noon Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam def na reñam ba jeexal ba génn àdduna am ay noonu noonu bokk na ci ba nijaayam ba ci nijaay maanaam ci deretam waaye doon bàyyi leen di wut unanimité ku yëngu ngeen bëgg fa nekk naan da ngeen di défendre non mais concentré sur l' essentiel li sénégalais war a xam-xam nañ ko loolu lépp ay politique la woon parité bi ngay gis Macky Sall Abdoulaye Wade moo ko fi indi moo ko indi ci assemblée nationale bi lépp ay deal lépp politiquement la defuñu ko parce que dañoo bëggoon développement déedéet dañu def ay parité yooyu pour politique góor jigéen góor jigéen loolu yëpp dañ koy buuf tuuri ca xat jigéen bu ko mérité dana ko jël góor bu ko mérité dana ko jël jigéen bu ko méritéwul duñ ko ko jox góor bu ko méritéwul duñ ko ko jox fii développement wu humain la ñu wax fi affaire wu humanisme la wax waxuñu ay waxu nit ay góor jigéen jigéen góor mag ndaw xale nangam nangam ay affaire yooyu noonu comme Sénégal ay xale du ko jiite ay lo xale yi mag yi mag yi ñu buub leen tuuri ca xaj wan leen ni mag yi ay magum bandi lañu yor magum kooba ba ko culaas la ñu yor magum cagaay ñoo taxawaalu fi taxawalee ne ñu indil leen booy vingt quarante quatre ans pour une première fois dans l'histoire lépp la ñu ay jigéen ak nangaam ak góor a nanga dama ne ku ko méritéwul doo ko fi laal doo laal tous suñu yoon newu ci bu dee góor nga wala góor jigéen nga wala guin nga wala lesbienne we don't give a damn on est la pour le développement de notre pays moo ñu intéressé ci loolu la ñuy dox lu dul lool intéressé wuñu focus leen sur l'essentiel focus leen sur l' essentiel yokku leen seen fulla seen fayda te ngeen bañ doon fi ay avocat di jaabul mënu leen xeex ba jël réew mi bu ko toogaat fi ngeen toog di wax rek di ratatati rek dëkk bi di développé wu lii mosu fi am gis ngeen le le premier ministre Ousmane Sonko tey passation bi amul folklore amul géwél gu fa toog di réyal am nañ ak yor la am nañu mbëpp non mosul am lii mi ngi doog am changement de mentalité ñu ngi doog a dem passation te ay géwél yi neew ñu fa yor seen làmmiñu mbëb yi bu mënee géwél nag je parle pas ay étiquette ay communauté man gëwuma yooyu sax quoi loolu benn instant ñëpp xam ngeen histoire bi société sénégalaise bi moom moo doon organiser wu jël na ñii ñooy lii ñii ñooy lii ñooy lii ñun bu ñu ñëwee lépp lañ buub tuuri nokk ca xaj ñun duñ fi géwélu kenn duñ fi ay géeru kenn nag ñeeño kenn ku ñu ku ñuy wax loolu ñu ñu samaam ku ñu wax loolu ñu ñu samaam ñewuñu ci monde boobu loolu sañu maam yee yàlla woon ñoo amoon jot boobu ñoom ñoo doon organiser wu ñoom organiser wu nañ ba dundee noonu ba dee jeex na ñun ñu ngi ci beneen monde man kenn du sama géer kenn du sama géwél kenn du sama ñaan ku ci wax ma ñepp sama am kenn du sama dara kenn du sama dara président la am premier ministre député maire imam lu euh, euh, mu tuddee prêtre ñooñu laa am awma leneen société bu ñu hiérarchiser la moment boobu noonu noonu lañ ko doxalee jeex na lu woon wëndi mais loolu lañ miinoon Sénégal bu ñu def passation géwél yi ñëw entre guillemets mooy ñooñu may wax noonu borom laalu mbépp yi toog muy dox yi di ratatat yi c'est la première fois ñu ñu fal ay ministres yoo xam ne seen famille jubilé wuñu mi ngi doog am dans l'histoire du Sénégal saa ñu faloon ministre seen jabar yi di di jubilé di yuuxu mel ni ko dugal biir coupe du monde ñu lay dénk alal réew mi ngay jubilé saa yu ñu faloon ministre nga gis njabootam yi commencé jubilé di wër dëkk bi kontaan. di jubilé partout ñu leen di def vidéo ku jubilé dee xeex nañoo xeex xeex bu yóbbu ci réew mi ku jubilé dee loolu ñu noo ko xeex ci suñu fulla ak suñu fayda ci suñu ngor ku kuñ dénk suñu kees nga jubilé dinañ tégal sa maam ku sa baay jubilé dinañ tégal sa maam ku sa nday jubilé dinañ tégal sa maam ku sa jabar jubilé la rot dañ def pétition première marche bu ñu def ci Sénégal mooy gis gouvernement Macky Ousmane Sonko fal benn nit ba jabaram jibile ba xam ci alalu baayam la jibile bu mu takk jëkk bu mu amee jëkkëram boobu jibilewul jëkkëram boobu doon liggéey jibilewul ñu jox ko alalu réew mu jibile ci saasa la ñuy def pétition def marche bu tàng ne waa ji day démissionné par force Sonko da ngay wàcce waa ji par force gis nañ jabaram di jibile mooy wane ni kii jotagul sax kees gi commencé tëb di dal kii bu ko jotee da koy warax la koy def wa na day ko moo tax ren gisoo benn ministre bu ñu fal ay jabaram di jibile wala doomam wala wala wala sëtam wala jarbaatam amatul kon loolu ñun ñoo ko liggéey ci suñu fulla ak suñu fayda la ñu def ba yegg si fii ci fulla ak fayda nañ ko continuer am leen fulla am leen fayda xeex bi dafa metti dafa yàgg dafa tàng tàng na yàgg na ñàng na ci lëndam la xuus ba jaar ba jàll daane fi ay dinosaure jële fi ay dëmm ay nooxóor opération rëbb dëmm chasse aux sorcières di leen éliminer benn par benn ba tey jii ñu jël nguur gi kon Sonko xam na li mu lu ko war dañuy encouragé mais duñ félicité encourager mais duñ félicité ku fi félicité ñu ñuus la amul amul dara lu ñu <laughs> parce que luñ la fi jox am na ku la ëpp diplôme boobu luñ la fi jox am na ku la ci gën a yow ku am na luñ la jox am na keneen ku ko mérite donc amul luñ la félicité dañ dañ lay encouragé ne laa ah, dénk nañ la moomoo sa baay moomul sa moomul léegi balaa ñooy dem sax defal ñu li nga xam ne mooy déclaration de patrimoine ñu xam la yow foo jógee loo yor ñun sénégalais dañoo soxla seen déclaration de patrimoine de ces ministres là waaw oui bu njëkk ba doonu am dañuy ñëw rek fa ab baadoola mu ñëw enrichir léegi nag déclaration de patrimoine ci des ministres te lool mooy yoon mooy dëgg te lool la ñuy réclamer ñun le peuple sénégalais il faut peuple bi indi ay exigences peuple bi indi peuple fulla peuple fayda peuple bu souverain peuple bu bëgg boppam peuple bu jiital boppam wane ni man nekkatuma dof jóge naa ci état bu dof donc loolu lépp jeex na fi ngeen xam ni kon lii changement am na mais yéen a war jàppale ci loolu parce que bu fekkee dañ naan as am sëqandoo am sippendoo am sigéendoo am logondoo ni mugg loolu la sama mbokk Gaston yi di wax Gaston Ndoye rappeur am sa am si am logondoo ni mugg donc ñun ñëpp tànk ak tànk mbagg ak mbagg ñu demandoo ci benn distance kenn bañ raw kenn tànk yi di tegoo di jóg di tegu di jóg loolu mooy dëgg mais ay seeni gouvernants yi nekk ci liggéey jamono ji sëgg bàyyi folklore bàyyi bambula bàyyi caaxaan lépp changé ngeen gis ko au lieu ngeen ànd ak ñoom ci pas à pas yi maa ngi leen gis ci ginnaaw ngeen fële yéen a ngi fële ci ñàkk fayda nag nu ngeen bëree jot man pour man lu ñu war a njëkk a def xam nga gars yi dañuy wax naan lu Ousmane Sonko wax ne sénégalais nañ gaaw wàññi dund ki mais man pour man non nañ leen gaaw jox liggéey nañ leen gaaw jox liggéey jarul wàññi dund de parce que gars yi dañuy comme ay xolam. comme ay bëy da nga leen di jox dund nag ci la wax ji di gën a bëree nag bu ñu xiifee duñu wax gis na weeru koor réew mi cocc lay def cocc Sonko ga bu leen gaaw a jox dund xaaral xaaral tuuti jox leen liggéey en attendant bu leen baa bu leen jox dund parce que fu nekk boo leen joxee dund te liggéeyuñu te ñun la ñuy rey dañuy mel ni béyu ndëpp lekk ba seen mbaq yi fees ba entre plein nègre content rax papapapap wax papapapapap wax papap parce que seen biir day fees ngir yàlla bu leen joxagum dara seen bu seen biir feesee day nalawi xam naa leen bu seen biir yi feesee ci wax ju bari la ñuy indi wax wax ba nalaw fu ñu toog ak naan ataaya ngir yàlla bu leen joxagum lu ñu lekk ngir yàlla bu leen gum lu ñu lekk bari nañ jot te ku bëri jot nag boo ko joxee lu mu lekk bu biir bi feesee da lay rey day wax a wax a wax ba nalaw bu yeewaatee eggali bu leen joxagum lu ñu lekk xam naa leen ventre plein la nekkul content et nekkul door nekkul parlotte tout tout le temps comme am nañ jot jamono jii xam nga def teel teel dund gi najal dund gi najal dund gi. nga jox leen ñu am ay préoccupation am lu ñuy liggéey bu boobaa kenn du ci am jot wutal leen lu leen di ñàkkaloo jot balaa nga ne jox ñuy coob wutal leen lu leen di ñàkkaloo jot jot balaa nga leen di jox lu ñuy coob wutal leen joob balaa nga leen di jox lu ñuy coob boo leen joxee lu ñuy coob ñun la ñuy rey dañuy lekk di wax rek ñoo raw kajo kajo ak janaxu bajo rak tak pap pap pap janaxu bajo fu ne la ñu dugg live yëpp la ñu dugg toog wa pap pap pap ay janaxu bajo lañ ay kajo lañ kajo kajo kado kado jana xubajo ku ci dul jana bajo mi nga partout wala kado kado jàppale ñu rek ngir yàlla le président Diomaye Faye ñu ngi lay kay ñaan bu leen joxagum dugub bu leen joxagum ceeb bu leen joxagum gerte ñu ngi la koy ñaan lillahi wa rasuli ñi ma gis nii nii doxale nii ku ci sa biir fees na loo ngay def jox leen lu ñuy liggéey ñu am préoccupation nga xam ne dañuy may jàmm réew mi ñàkk liggéey moo tax wax ji bari réew mii bu amee liggéey kenn du wax dama ko xool ci man bu mu amee préoccupation pour ma def laay problème la wala ci mbedd mi laa koy defee dóor sama waar wàcc di kurti kurti def live profito ndax ñàkk jot xaw ma li ngeen di wax ñàkk jot moo tax tolloowu ma ak yéen foo leen di débat nekkuma fa seen wax ñàkk xorom yi nekkuma fa seen wax ñàkk fede yi nekkuma fa seen débat inutile yi nekkuma fa donc parce que aw ma seen jot sax déjà ñàkk jot bu ma ñii yóbbu ba ma ñàkk koo jot tax na 24 7 maa ngi sama waar ba taluma leen kon nañ leen wutal ñàkk jot ba pare wallahi buñ leen joxee loo leen lekk te amu leen jot di ngeen ñu sonal ñun ñii ngeen di sonal te seeni nawle lañ te nawle daa foor jàppale leen ñu lillaahi a suuli maa ngi woolu président Diomaye Faye mu jox leen liggéey ñu am jot dañoo bëri jot ñu jot ba jox leen lu ñu liggéey en ñoom ñëpp am luñ jàpp ñu may ñu jàmm jàmm na ñooy nga xam ne buñ sëggee si seen liggéey duñ nekk ci net beeg réseaux sociaux yeeg ku ubbi live am ñu taxaw fa di wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax di tàmbaambaalu ko wëndaalu wax ju bari kese wax jeex na liggéey moo fi jot liggéey kaay lañ ñu liggéey ci loolu la ñu woote kaay lañ ñu liggéey changement radical de paradigme un changement de paradigme radical kaay leen ñu liggéey bàyyi leen caaxaan bàyyi leen wax ju bari ji tëj leen ko tuuti ŋàpp leen ko ba mu tuut ŋóoloo li ŋàpp ko tëj leen ko tëj leen ko rap rap rap te ñu nekk ci liggéey bi affaire mbir mi changé na de mbir mi changé na et on va travailler on va travailler le projet y a du tout lépp si projet bi ñi yàkkamte wax dañoo yàkkamte wala dañoo liiru projet. ba ma jëlee sama temps lire projet bi am na loo xam ne man maa ko préparé woon lu bari lu ci bari fekk naa ko ci projet bi dama ko tegee nële te dama naroon développé ñëw ne leen dëkk nii lay développé ci nii lay développé ci nii lay développé loolu lu ma préparer woon la soxlawul ma dem ci benn université fooy waxee dëkk bu développé nu mu développé boo ma woowee ma bokk ci débat bi ak professeur boo mun a doon parce que acquérir naa connaissance boobu noonu ci samay voyage ci dëkk yi développé nan la ñu développé dem naa fa wut naa xam-xam laaj naa leen xam naa nan la réew di développé déjà changement de mentalité réew mënul développé ci wax ju bari réew yu gën a développé moo gën a calme bruit bi xam nga ay lan la bruit bi oto yi la boo demee New York bruit bi oto yi la boo demee New York métro yi bruit bi métro yi la boo demee Canada bruit yi dégg ngeen doo dégg nit mais yéen a ngi dégg bruit oto yi mooy gaa yaa ngi daw gaa yaa ngi liggéey lépp ngi dox tak tak tak tak tak tak donc bruit boo demee ci dëkk yi développé bruit du nit Sénégal boo demee ci dëkk Sénégal bruit nit yi la wax rek wa wa wa way da da e fatu e bintu e la wa u ha e ma ta ko e ta ko e ma nok de e jo e ma tak tak ko ha ha ha fii bruit yi oto yi la métro yi bus yi nit yi ne salaw parce que nit dañ fi newul ñi ngi xaar biis soit ñi ngi nii soit ñi ngi nii tak bis lañuy xaar doon la gis ñuy taxawaalu fii bis ñi ngi ne le ñee bis tak biis bi ñëw ñu dugg dem ñiy dóori waar ñiy wàcc dem ñibbi kenn amul jotu kenn ñii talu ñuy wax ñii talu ñu wax ana nit yi ana nit yi ana nit te ñii ñi ñi ngi ñoo leen ëpp nit foofu ana nit yi anañu anañu ngeen mel ni benn ñebbe ci biir cin 18 millions ngeen comme village ñii ñu ngi ci ay 30 millions 33 millions 40 yéen disi comme benn ñebbe ci biir cin lan moo ko waral bëri jot ku bëri jot jot ñàkk jom wax rek ngay liggéey nañ jóg ci suñu bopp nit da ngeen am nawle ay débat yu inutile Sénégal amul sax forum forum amul Sénégal quoi forum dëkk yu développé dañu am forum xam ngeen forum si biir internet bii dañoo xam nan la ñuy utiliser réseaux sociaux yi dañuy ñëw teg benn sujet bu développé wu gars yi di jaay xam-xam def ko Sénégal lañ ñu saaga sa ndey kenn moo ñëw rek waaye damay tëb lëmbal tëbati lëmbal rek kay na ko ay wax tay ma pitax bu daw jool loolu sa yaa damaa neex kenn ko tay rëkkatil tam tamal na ko ti dabax mujj ndoxam guro tay rek ma koy tay ci biir forum yi mais lan moo tax tubaab bi di def ay forum di ci waxtaan développement di indi ay sujet développement personnel di indi ay sujet souveraineté nationale di indi ay sujet souveraineté alimentaire di indi ay sujet kenn du saaga kenn daf ko fi léegi kenn day jóge feneen ñun dañu xiif waaye boo dee yàlla tawal juróom-ñaari bulet waaye ñu lekk ko waaye ñoom lépp lekk lañ ko gis fekk ñi ñi ngi ay forum de l'emploi forum de forum euh, de de recrutement forum de développement xam-xam fi boo ko fi defee léegi kenn ñoo ne waaye tawul bu la ñu lekk yow sa waay <laughs> ñu ne yow xiif yow yow boo dee yow yow yow tawle xal ah, léegi tawle xal la ñuy wax ak ñoo bu njëkk bi dañ boo dee yàlla tawli xal ñun sañ jamono loolu lañ ñu doon wax léegi booy lekk rek la yóor boo dee yàlla tawli bulet ñoom bulet lañ xalaat boo dee yàlla taw <laughs> boo dee yàlla tawli bulet sa waay ñun boo dee yàlla tawli xal lañ doon wax kañ la yàlla commencé di taw yi bulet lekk lu ñu lekk les besoins kilinaire besoins sexuels besoins alimentaire pyramide de Maslow besoins primitifs ñu ngi ca monde boobu ñoom jóg leen ñu avancé jóg leen ñu avancé ñuy nalaw nañu ñu ñu yeewu nañ suuli ñuy deyee ña yeewu nañ suuli ñuy deyee ñu avancé progressé ku dee kenn mënu ko yee am nañu dee ci ñun bu leen leen yee dañoo dee suuli rek moo war ci ñoom kenn mënu leen sauver lépp jaar na fi mënuñu yeewu boobu monde bi ñu ngi ci ay forum de sécurité de la sécurité forum de de de euh, du panafricanisme forum da nga dugg di commenter kenn du saaga sa ndey kenn du saaga sa ndey boo ko defoon Sénégal laa ñu tëb lëmbal sa ci sa juróom-ñaari maam. nit yi dañuy da ngay jéem a évoluer développé wu nit ku nekk war nga def rétrospection sénégalais mooy dund ba dee du def rétrospection quoi lu ko daloon comme jig-jigéen lu ko daloon déwén dal ko ren daw ko après cinquante ans da koy dal mooy kooku dafa rétrospection dafa am introspection et rétrospection doomu aadama buy dund day xam lan démb lan mooy ay erreuram mu taxaw teg erreuram yi ci kanamam mu doon seetu ci moom mu jàng ci erreuram yi xool lan moo ko lu ko daloon lu ko métti lu ko yàqal mu def ci tel introspection rétrospection doomu aadama foog muy dundee noonu doomu aadama du mala mala mooy dund sans rétrospection ni inspe eh, introspection doomu aadama day day dafa am loo xam ne ko war a xool mooy le développement personnel spirituel mi ngi fa corporel temporel développement moo tax ñu ne le développement personnel muy introspection muy rétrospection mais doomu aadama noonu la mën a avancer doomu adama bu dul xalaat démb lu ñëw mën a non yàlla la yàlla yàlla baax na Sénégal lañ gën a sosalee yàlla Sénégal la yàlla du du na ma yàlla baal du gëmm parce que nuñ koy sosalee buy xefe xippi ñu sosal ko bu xefe xippi ñu takkal ko nit jël fetal ne nii xol booy bi ne ko dëll wàcce ñu diri yóbbu néew comme jus bii boo ñëwee <laughs> fekk ci kër ga ñëpp toog muur <laughs> la la la yàlla baax na ndeysaan yàlla baax na dem na de muur bi de dem na eh, eh, muur dem na eh, waaw kay ndeysaan yàlla moo ko dogal noo yàlla ay waay kon yàlla moo yor fetal bi di tiire waate daal muudu lan la wuteeg yàlla muudu yàlla moo ko rey muudu ab policier visé ko natt ko ne ko tël daanu nga war a dem lijjanti ji autopsie nga war dem lijjanti ji ñubu jàpp ko ko rey nga bàyyi criminel ba dox nga naan ay yàlla baax na ne yàlla mais bàyyil yàlla bàyyil yàlla yaa ngi koy tooñ de n'a absolument rien à voir moo tax yàlla nalawul Sénégal dañ koy sosal di ko sosal ba dafa mujj tu taxaw na ma yàlla jégal taxaw jàkkaarloog ñoom nii ah, yàlla lan la ñu ah, dëkk bi dañ may sosal de lu yëngu ñu ne man la dañ may sosal rek munu ma nalaw ndax dëkk bi damaa nekk ci stress fitna munu ma nalaw ndax dëkk dañ may sosal rek lu yëngu ñu ne ñu ne man la mënumaa am jàmm ci réew mi te nee nañ dañ maa gëm nag ku la ci gën yées gën a ma kiila la lépp ñu banaliser ko lépp lañ banaliser ngeen foog ni fii dinañ fu jàpp ab police jàpp nit natt ko tiire ko noonu dem këram un an deux ba léegi kenn gisu ko ay nit bu sol numéro neuf ñu jox ko classe ni kof mu armé karaj karaj tël tël tël naaw keneen ki sax cigarette tam nii di di arme kàcceeg xëcc tak tak di foo quoi ci kaw ci kaw nit yi nit yi di dee ñu diri leen yóbbu seen kër sang néew dem suuli ñu lalla lalla na yàlla baax na yàlla baax na mais y a problème là soyez sérieux guys soyez sérieux vous voulez développer ce pays là vous avez élu des dirigeants visionnaires ay dirigeants visionnaires ngeen def ay dirigeants yu comprendre monde bi ni muy doxee géopolitique géostratégie ay dirigeants yu yeewu ci àdduna ay dirigeants yu seen loxo set waaye man Sonko dama koy xool sax yërëm ko ndax bëgg-bëgg bi mu bëgg Sonko caaxaanul quand je le regarde j'ai pitié de lui lekkul naanul mi ngi taxaw taxaw dix heures dix heures moo fu la ñëw neuf heures et quelque dix heures zéro heure fa la ko fekk tak amul kii mu taxaw dóor passation mu jox ko kayit yi tak tak pare na ca nalawul lekkul naanul nga xool ko xam ni kii dafa jóg pour liggéey nga xool ko xam ni kii dafa yanu àdduna jamono ji nga xool ko xam ni kii xam na lu tegu ci kawam lekkul naanul feetuwul feccul wootewul baal nga xool xam ni kii liggéeykat la nga xam ni kii def jàmbaar la nga xam ni kii dafa dogu nga xam ni kii ànd naag Pastef mais loolu xam nga fan lay neexee sa waay nga dugg sa oto dem liggéey gis Sénégalais yi nekk ci mbedd yi di ko jaayante di liggéey ñoom tam nekk ci set setal bi set setal ñetti fan la sànni nañ sànni nañ bureet ya set setal bi ñetti fan la de sànni nañ bureet ya yàgg na man mi doon toog fii di jooy ndax euh, set setal ga ñetti fan la pare nañ ca bureet ya de xaw ma kañ lañ koy jëlaat nag ana peel ya ana bureet ya ana rato ya wala dara jeex dañ ko da ko delloo nii ba toog kon jeex na li ngeen fi set setaloon dama cee kontaan a kontaan bay jooy da ngeen jëlaat leen bureet yi jëlaat leen affaire bi du benn fan de changement bi kii du benn fan du lundi mardi mercredi dama nekk ay ca ay ca ay ca ay ca chaque weekend da ngeen ne Dakar dafa war a mel ni Rwanda yéen a ko waxoon de. Rwanda de balewuñ benn fan de balewuñ ñaari fan ak ñett di toog de Rwanda dañ koo jàpp chaque weekend vendredi samedi dimanche chaque weekend la chaque weekend la ko Rwanda tegale. yéen a fi woote ne dañoo war dañoo war a ñun ñoo war a gën a set Kigali yéen a ko fi wax ñun ñoo war a gën a set euh, Rwanda yéen a ko fi wax donc affaire bu du benn fan du ñaari fan du ñetti fan jël leen buret ya jël leen rato ya jël leen peel ya ay ca ñu teg ko ci chaque weekend la mën nañ ko tuddee weekend sitoyen weekend citoyen voilà kon nag jël jëlwaat leen jël matériel la challenge bi loolu la woon am ay les volon amee les volontaires verts lañ topp ci projet bi ànd ak projet bi di dem liggéey les volontaires verts mooy ñi nga xam ni dañuy jóg di reboiser def reboisement xool leen fi ma toog tak xool leen mi ngi nii lépp xool leen di ma wër yëpp garab yaa ngi nii wër ma fii fu nekk nii da gis donc jóg leen jóg leen commencé guñ sax jóg leen chaque week-end des volontaires verts espace vert volontaire vert mooy ñoo xam ne dañuy volontaire ñëw ñii ji partout di samp partout <laughs> sa xel dal na yow mën ngaa dem fu mu nekk nii yow am nga sa chimique lam nga liggéey ba wàcc am sa cotisation am sociale lépp yaa moom mën ngaa ree naan vert man ñii may waxal nii amuñu sécurité sociale amuñu protection euh, du travailleur amu dara yoruñu ko am euh, euh, bu buñ retraité fukki dërëm nañ ko yor yow mën ngaa nekk fee naan vert may ma tuuti ma eggali ñii ma eggali ñii ñi nga xam ko leen juróom yërëm leen dara ñu ko ñi ngi liggéey ci danger ñi ñi ñi ñi liggéeyuñu ah, amuñu sécurité sociale ah, cotisé cotisé cotisé wuñu retraite dara yoruñu dara bu ñu feebaroon tey jii dañuy am problème mu faju boo dem naan ci oto yi la ñuy dee te yow boo boo fa xasaloo nii ambulance ñëw jël si la léegi kenn ñu ma la agressé ndax ay policier la wër dëkk bi yëpp a ngi nii nga naan ma faire nii nii policier ngi nee ñi ñëw ay policier ngi nii ah boo fi wootee léegi-léegi ñu kii la may ma tuuti ma yeggaleeg sama mbokk yi nga naan faire faire faire di continuer mooy distraire xam sa bopp ci jaamu yàlla la bokk neexum ngoon xam fay fanaanoo ko gën nii ku leen topp ñu la ndax lépp lañ leen assuré seen nguur yi lépp lañ leen assuré ñu nekk di liggéey lépp lañ leen assuré ñu nekk seen jàmm ak salaam amuñu problème bu ñuy am ñun donc nañ continuer liñ doon def ci loolu lañu ñu war a concentré wu ci loolu la ñu war a concentré wu mooy maanaam li tàmbale set setal bi dafa wara a continuer reboisement bi dafa war a continuer setal réew mi dafa war a continuer organisation bi dafa war a continuer gis naa ay nit yu bind ci antenne naan wéy numéro <laughs> numéro baa ngi nii police bu la bëggee corrompu yow xoolal numéro bi ngay woo off naag ma ne ñi wér nañ ah kon affaire bi noonu la quoi yow yow yoroo casque ñu jàpp la nga naan ay yow may sa waay yow yow dëkk dafa am corrompu ak corrupteur corrompu bi corrupteur bee koy dundal Sénégal bu ñu fa tegoon numéro vert balaa ñu faa woote am problème. kan mooy ñëw nga ne ko joxel 3000 solu kas nga ne ko joxal 3000 mu génne la 3000 jox la non grand jàpp ci non grand jégalu non grand xolal ma sama yaay laa doon jëndal médicament yi waaye dafa feebar léegi mu dee non grand sama yaay bopp bee explosé xar na ñaar mais instant yi dama nekk am ci problème léegi ci laa jox kii mu njaay abal ma 500 kii abal ma 2500 1500 yi xolal ma pare damay jigu dama ko ci war a jënd hamburger bu mu lekk yow ma grand jàppal ma non grand dimbala ma donc kooku noonu di wax loolu kooku dina woote OFNAC kooku dina woote OFNAC kooku di corrupteur dina woote OFNAC moo tax numéro boobu dina fa def cent ans kenn du fa woote réew moom rek ku leen joxoon numéro xoola huit huit huit huit huit huit cent ans kenn du woote kenn du woote lu leer laa lay tagal nag kan koy woote corrompu corrupteur waa ji bi nga xam buñ ko bu ko doon bindal fooy noo grand bul bind noo grand teel bi bi noo grand may ma tuuti noo grand xolo noo grand jàpp ci noo grand fekk solu casque yow balaa ngaa réclamer balaa ngaa réclamer ses droits kay def ses devoirs yow solo casque nan da ngay woote OFNAC ah police bi dafa maa eh, police bi a jël 2000 mais yow eh, ànd yow nga violé loi yi loi nga violé ko koy woo koy woo c'est que soyez sérieux un peu des fois da nga gis ay yenn affaire ci internet bi nii yi di ci def da ngay toog di ree ne mais yow yow sangoo ba set nga naan da ngay da ngay woote ndax waa ji daa tilim <laughs> yaa ngi xaso xunnu di woo ko allo allo waaw af naag am na benn waaju tilim ku toog fi mais fekk yow yaa ngi gilli problème bi kay balaa ngaa woo ne kii daa tilim kaay leen jël si ko kay nga set bu ñu commencé di bind dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg réew mi day tàkk sénégalais yi si boom ñooy génn boo def nag di marche di xeex naan police bu police bu jub sax dañ naan dafa soxor policier bu jub Sénégal daal kii ku soxor la eh moytu leen tali boobu kii dafa soxor kii du baale dafa soxor boo jubee da soxor Sénégal balaa nga woote kay nekk en règle mais da nga nekk sax en règle da nga dul nekk en règle de <laughs> yow nan nga mën a nekkee lépp en règle dawal en règle sa casque nekk en règle lépp en règle benn policier bugg laa arnaqué. <laughs> kon xam ngeen ni ñi ñuy jàpp dañoo newul en régle policiers yi dóor leen liñ yaa nekk en règle say kayit yëpp nekk en règle loolu nan la lay jàppee bu la jàppee da lay bàyyi kook jaru ngay woote of nag boo nekkee lépp en règle soxlawu la parce que daf lay arrêté parce que da ngaa fàtte sa casque da lay arrêté parce que yow sa je sais pas yaa ngi jaaroo ci yoon moo tax mais ku nekk en régle duñ la laal permis nga taxaw carte grise nga taxaw vignette taxaw luñ la laaj nga taxaw. assurance nga taxaw lu la dóor nga taxaw xool oto bi tépp lépp rek lépp nekk ay règle mais kooku du la mën a la jàpp day bàyyi nga dem bu la jàppee sax parce que da ngaa jaarul règle ñàkk règle boobu ngeen dem nag ngeen doon ay animaux nga dóor say infraction taxaw jàkkaarloo moom nag nga bu ko lekk wala mu lekk la kooku du woote na mbir yi jaar yoon ba pare balaa ngaa woote bay ci say weewu tànk lépp ci yow lay tàmbalee balaa dem ci yow lay tàmbalee nga respecter règle yi code de la route ba pare am lépp lu war taxaw non kon nan lañ lay jàppe boo ko joxee yow la neex boo ko joxee yow neex ku ci nekk dal na la fi nga daa jaarale mbir yoon policier bi ñëw di la jaay pare ñëw jël sa permis di dof dof lu nga taxaw di ko xaar na ko boo paree rek nga jox ma sama permis fukki dërëm du ma la ko jox fukki dërëm non grand non xoolal fukki dërëm da la koy jox ah, bu bu boobaa nag mun nga woote bu fekkee ne tout en régle mu lay jaay prek foofu wala bugg laa arnaqué boobaa tu peux appeler mais fa damay woote sénégalais pour nekk en règle balaa ñoo wax ci waxu règle nañ nekk déjà en règle ne lépp jaar yoon lépp jaar yoon ñaata yoon lañ ma fi ay booy di ma fi woo grand police tel bu nekk kii non day jàppaate nangam nangam. man leen fexeel leen ma fotol leen ma ko fexeel leen booy fotol ma ko nga xool kenn solu ci casque booy ñi ngi ñi ngi ñi ngi yor moto de ñoom ñaar tegonte tegalante mu mu mu mu mu mu su euh, supporté ko ñoom ñaar kenn solu casque ma xool photo bi nag ah policier bii la ma ne waaw mais ma ne ko ki ki taxaw ni ma ne non man la ak sama waa ji <laughs> d'accord yow booy loolu bëgg leen nii ma wax ne policier bi daal soxor quoi ah d'accord parce que day jël seen mille francs ki mille d'accord <laughs> balaa ma leen di kaas xam nga ne ku ci nekk ci yéen na nga wut casque dégg ngeen teg seen casque ba mu dëgër ba mu taxaw ba nga xam ni man bu ma demee di leen kaasal moom du tourné na ma kii lii wala lee mais fu ne ni mënu guma leen kaasal nag parce que yéen seen bopp buñ ko doon jàpp leen di jàppaale bu ñu ñëwoon jàpp policier boobu yéen ñaar ñii du leen fi bàyyi yéen a nga supportant supportante te kenn ci yéen solu casque yéen ñaar ñëpp ak moom ñëpp ci kaso ba mbir day jaar yoon boo rocci waat ndànk photom ba supprimer ndànk photom ba taxawee ne ci la ma may jàmm waaw ah way ful lay jaay taxaar maa ma ñam jeexal ko du ma fi nekk di la fen de mel ni man benn genre lantinoor laa daal ku war dañuy sotti rek muy jàll sotti rek ku ñëw rek sotti mu jàll déedéet damay segg damay segg bu moo la waree wax dëgg yow laa koy wax man loolu laa gëm man ci dëgg laay dox doomu aadama yi wutuma lu neex benn doomu aadama problème bi le problème du Sénégal c'est les Sénégalais kenn mënul defar Sénégal te defaroo le mal est trop il faut oser le dire. Le mal trop profond. donc lega man maa ngi ñëw euh, dem xoola policier bi nii boo gisee xoola dafa dafa làqatu nii de mais balaa moo jàpp problème ba xoola des fois day génn day sonn daa làqatu nii fu ne nii machine am gis nga gis ngeen fiil bi xool leen xoolal fil bi dafa am ci poto poto bu mu taxaw poto bu mu taxaw poto bu mu taxaw da xool dafa am fil dafa am fiil dafa am rajo lépp tout ba dafa am camera ba ci yërëm bi caméra bu ndaw bu teg lépp du ci waxaale tak dóor na la flash flash ba kepp na la lettre ba sa kër nga koy jot sa pos nga nga ubbi sa sa sa sa boîte postale fekk fa affaire ba doon wax bariwul lii lépp nag lu mun a am la lii dara difficile ci dara compliqué wul dara li ngay gis nii du tus ay xale yu ndaw ñoo koy def montre bi ngay gis nii ay ponkal ñu fa ay moroomu Ousmane Sonko defaruñ ko boo demee Japon wala Chine ne ni ay booy quinze ans ñoo fa nekk ay booy seize ans ñoo fa nekk di ko defar donc fii dara yéemewu fi dara yéemewu fi ay nit yu ambitieux lañ ten ay patriote bëgg seen réew jiital seen intere réew rek ñoo ñoo fi doxal kese ku ci nekk danga war a xam sa rôle ku ci nekk da nga war a xam sa wareef nga def ko sëgg leen ci liggéey bi sëgg leen ci liggéey bi